asalaamaaleykum mbokk internet yi ku gis tey taxawaay bi jëru ngay laaj ma jugoon ànd ak fan Baol Time seet si koo xam ne nag Diourbel kenn dootu ko laaj tey. mais tey kenn seet si kan la Adja Diabalo moom la ñuy seet si tey ci biir këram xool nu mu duggee ci biir tabaski ki ma toogal di gaynde goo xam ne fii la dëkk ci njaarim di jigéen joo xam ne ba mu jógee ba tey toogul ñu julli si ñu bëgg leen a laaj seen julli nan la. Diaba ñu ngi lay ziar. waa fay. di la ziyaare bu baax a baax ci bis bu tedd bi di am kontante ci ñëw gi ngeen ñëw fii tey di leen baalu àq te di leen baal di ñaan ci yàlla di julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad ñu julli ko ay julli yu bëree bëri. jàpp doon koo xam ne nag ban ko déggee ci Moustapha ba tey mosuñu dégg na daw na ci Moustapha. yow it nga doon jigéen joo xam ne ba nga néew wii ba tey néewoo noo nan ngay balante àq ak politiciens yi ak ñi nga xam ne jaaroon nañ ci yéen te nekkatuñ ci yéen ak ñi nga xam ne ñi ngi bëgg a ñëw nañ lañ leen di ubbilee bunt yi bu ko defee nga tàggatoo ci. Abdou ah. bal naa ñëpp àq. di baal ñëpp na ma ñëpp baal. noonu la demee tey kin seetsi woon nag. doon koo xam ne jigéen ju mën góor la gaynde la muy jàbbaloo tey moom lañ seet woon ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen wax dox daje ci même fréquence même heure ci même chaîne ci même site seen bawal ma leen koy jox saa su ne ci biir kër gi ay ca asalaamaaleykum suñ mbokk tele internet yi di leen wax ne nag tey ñu ngi fan Baol Time lañ nekk ku gis fii nag doo laajte lu xew tey ñu ngi ñëw ci kër goo xam ne ah duggee daanu ko xam ndax nag ki ñu tax a jug saa ñu jugee yëfi leer ñu dox ñu xooli ko ba xam nañ am dara ayca asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi tey nag ku gis toogaay bi jarul ngay laajte ki ma seet si nag nee naa la bu wax ji bare du moom ndax nag kër gu mag la dëkk waaye deful daray wax deful daray ñàkk ful la te ki ma seet si nag kenn dootu ko laajte Balla ñu fa yéene ko jox mu nuyu mbokk internet yi Balla ñu ngi lay ziar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Abdou maa ngi lay nuyu bu baax sama sama xarit sama jarbaat di la jaar di la màggal ci eh, bisib tey bi muy bésub tabaski di la baal àq di la baalu àq eh, di baalu àq waa njaareem gépp di waalo di baalu àq waa Sénégal gépp di baalu àq àdduna gépp te di leen baal àq tey ñaan sunu borom Euh, ñu fekk koy at yu bari euh, suñu borom defal nu jàmm defal nooy xéewal yokk ñu ba ñu yëg ko maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu waa njaareem gépp jërëjëf li mu wax dëgg la sama ñi jaay la sama xarit la tons di leen sant aussi di leen euh, ñaanal bu baax di wax ne kontaan naa trop ci seet si bi ngeen ma seet si wax dëgg fa yàlla euh, yàlla yàlla def jàmm rek ci réew su ñu borom euh, defal ay xéwal yu bëree bëri sàmm ñu te bés bii ñu fekk koy at yu bëree bëree bëree bëree bëri jërëjëf gars yi ne woon naa leen kin seet si bu wax ji bëree du moom waaye bu jëf ji reyee moom la ndax nag moom mi ñi mu doon fekku leen fi ndax nag booy wut personnalité baa ngi wut koo xam ne daa bëgg dara ci njaareem faaw nga seet si ko muy sama ñi jaay di sama xarit di leen wax ne seen bawal time lii seen jàkkaarloo yow fii li dégg ngeen li fi jot a seen ak li fi jot a gars yi taataan di leen wax ne nag dig daje ci kanam tuuti ak Baol Time ci seen site internet. Baol Time jug ngir bëgg a seeti ñan ñi nga xam ne ay jeunes lañ te nekk ci dëkk bi ñi nga xam ne ay porte de voix lañ ñi nga xam ne lu ñu wax nit ñi mën leen a bàyyi xel tey ñu jug seet ci koo xam ne mi ngi tudd xam sa diine doon koo xam ne ci réew mi la dëkk du fi judd jéeri du fi medentaan te lu wax nit ñi bàyyi ko xel doon. ne ñi ngi lay ziar. aouzu billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nii seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ci bisu julli gi ñu nekk di baalu ak ñëpp tey baal àq ñëpp di ñaan ñu fekkee ko ay déwéni déwén di la siyaar yow Cheikh Abdou Khader ak waa Baol Time jërëjëf. jërëjëf ñu commencé waxtaan wi ndax xam naa ne waxtaan wi ma bëgg dégg tey ku ko déglu di nga dégg ndax kii ñu teg nag min na écran écran miin na ko waaye sénégalais yi nañ ko mu doon koo xam ne nag personnalité bokk na ci moom ndax nag du juddu jëriñ du melentaan léegi yow lan ngay tàggatoo. ak lan ngay dolli waa Njaareem ak lan ngay dolli ñi nga xam ne dañoo bëgg a doon dara ci dëkk bi. waaw Abdou Khadre li may tàggatoo daal mooy kii nag jar na defal yendu boo xam ne. lu bari lu lëndëmoon njaarim dina feeñ man xam naa li ma lay wax ndax fii laa dëkk te lii muy wax nii am na mbóot yu bari yoo xam ne nit ñi war na ko xam jaajëf bool time moo leen ko doon jox ci fréquence beeg heure bi saa su ne ñu fas yéene leen koo biis rek lii moom lu bees tàq la asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nee naa leen euh, ba tey ñu ngi ci réseau bi ba tey ñu ngi ci ligne bi ba tey ñu ngi ci yoon wi sëñ Mbacke ñu ngi lay ziar. waaw ah, maa ngi di leen ziar bu baax baax di leen baalu àq ci weeru mag wi di weeru tabaski di ñaan lépp luñ ci ñaan rek suñ borom nangul ñu ko. asalaamaaleykum mbokk internet yi di leen wax ne nag ba tey neewoon naa leen suñu jugee fii dinaan seetiwaat feneen seetiwaat beneen élément fii nu ñëw nag kenn du ko laajte ku muy présenté wu muy ko wax tudd Ndiaga mbay dëkk natul dëkk biir Ocass kii ma seet si nag su ma ko wanee àdduna sépp nañ ko xàmmee Ndiaga ñi ngi lay ziar. Abdou maa ngi lay jaar sama jarbaat di la nuyu di la sant di rafet rafetlu it euh, ñëw bi wax dëgg yàlla ndax liit mbégte laa ko def lu tor. waaw di rafet lu di rafet lu dalal gi nice na tons di la wax ne nag li ñu bëgg a xam moom ak message yi ñu bëgg a jàllale yaakaar naa lépp fii lay jàlle seen Baol Time di foo xam ne internet bi macha allah ñëpp ñu ngi koy suivre kii laa leen tegal ne leen mooy Ndiaga Mbaye